polis bu Mbàkke ci liggéey bu am solo bu ñuy amal ngir gàllankoor képp ku nekkul ci yoon tax na nag ñu teg loxo lu tolloog juróom benn nit ñooñu nag ñu ngi leen jàppee mbirum carte xaalis mu ñu amul benn autorisation lépp nag mu ngi tàmbalee ginnaaw askanu Mbàkke bi ñu nemmeekoo ay xeetu masinu carte yoo xam ne nii bëri na fi lool dañu ñu koy nemmeeku ci buntu jaaykatu sàngara yi buntu yenn multiservice yi wala salon de coiffure yi ba tout tànk yi maanaam xale yi commencé di fa dem ak yenn soxna yoo xam ne ni léegi léeg bu ñuy dem marché danaan fa jaar di carte mbir mi nag tàmbale woon a jur coow ci dëkk bii di Mbàkke Bawol ginnaaw bi mu tàbbee ci nopp procureur ci la jox ndigal nag waa police ñu wàcc ci terrain bi teg loxo nag ne ni ñoo doon saytu machine yooyu ñooñu nag toll nañ ci ñeenti nit di ñetti góor ak benn jigéen biñ leen laajee nag dañ ne machine kat benn chinois moo leen ko jox di liggéey ak ñoom buñ liggéeyee seddoo 20 pour cent yu nekk ñoom ñoo ko moom police nag bi mu welee ab liggéeyam fexe ba convoqué kii di chinois bi mu jóge ndakaaru ci àllarba gi nungu na ne moom moom machine yi wax na ne itam ne dafa amoon yéene investir xaalisam ci machine yi ndax gis na ne dox na waaye xamul woon na nag dañ ci autorisation ginnaaw bi polis defee ab liggéeyam nag ci lañ ko jébbal nag procureur mu daal di leen defeere fii nga xam ne ni moo di parquet bu Mbàkke ngir xaar nag yoon naka lay jëflante ak ñoom ñoom ñi nga xam ne ni nag teg nañ leen loxo mën nañ leen a toppee mbooloo muy ànd di biral kartu xaalis te amuñu ci yoon ñenn ci ñoom sax mën nañ leen a toppee jaaykati sàngara yoo xamante ni amuñu benn kayit bu fekkee ne nag kii di làppatoo chinois bi di interprète bi mën nañ koo toppee koo xam ne ni dafa complot chinois bi ngir biral liggéey bi nga xam ne nii jaarul ci yoon mu nekk nag occasion boo xam ne ni bu sukkandikoo ci fi nga xam ne ni foofu la xibaar bi bale ki nekk ci ëttu attekaay di procureur Seydi omor Diallo nekk gan ci département bu Mbàkke fas na yéene waaye liggéey bu am solo bi ba fii ci Mbàkke bépp kër boo xam ne nii dañ fay jaay sàngara wala kër boo xamante nii lu jëm ci auberge la te teguñu ko ci yoon maanaam amuñu ay këyit ñu teg ko loxo dakkal ko ba dëkk bii di Mbàkke Bawal mën a tàggook nag yenn ñaawteef fii nga xam ne nii nemmeeku nañ ko fii mu ne fi xuus